yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ginnaaw coowal Alune pétrole ak Sall gaz ginnaaw coowal Mbaye Prodac ak Ousmane rapport am na leneen coow lu wuneeti ci réew mi coow loolee mooy coowal Diop jamaam li mu fi suli du ko yóbbu kaso ne ginnaaw li mu waxoon ba doon ci tuumal président Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye Jean Claude Mimran ak Diagne Ndiaye yoon dugg na ci wax ji ba démb ci guddi moom maître Moussa Diop ma nga woon ci sûreté autorisé moo dégg coow li juk autosaisiru ci ngir leeral mbir mi Sud Quotidien bi ne maître Moussa Diop ma nga ci sûreté urbaine enquête dina kay ne ko mi ngi ci guddi gu bët ne lim wax su génneewul preuve jox ko justice bi tamadu ko ëppi buum journal Tribune di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba dañu wax ne moom maître Moussa Diop ginnaaw révélation yi mu def keroog jëm ci mine de bu mu ne état bu Sénégal da koo baaxee l'homme des affaires bii di jama yéen a bi dañu xibaar ne jot na xeeram yu njëkk ma nga ca loxoy sûreté urbaine Aly Ngouille Ndiaye porté na ko plainte di ko toppee tuumaay sos di diffamation Jean Claude Mimran mu mu boole ci wax ji bés bi le jour nee nañu weddi na ba mu set wecc maître Moussa Diop Mimran nee na Moussa Diop waxul dëgg lëkkute yeenañu Moussa Diop ak i jamaam Aly Ngouille Ndiaye plainte na ko Mimran weddi na ko ministère des mines tiiñal nañu ko keneen ko ko weddi moom ci seen politique bi te bàyyi ñu politikul ñu nekk ci la ñu nekk maître Moussa Diop ma nekk ci loxoy waa sûreté urbaine libération xëy na di ñu wax lenn ca yamu fax démb arme di ngànnaay yi mu ne woon dañ ko livré waa présidence ba ñu ko laajee da ko dëggal jaaraat fa mu jaaroon waxoon la mu waxoon bu nuppi génne ab connaissement jox leen ñu laaj ko ci waxi jamaay mu waxaate la mu ca waxoon jaaraat fa mu jaaroon génne waa document yi mu génne ne leen mënu leen a wax fan la jëlee document yi ndax dafay protéger ay source am source wa nañu la alkaati yi demee jëli njiital Dakar dem dikk la woon dem ak moom ci sûreté urbaine ma nga ñu garde à vue te su moytuwul danañu ko defeere ci waxtu yi di ñëw Aly Ngouille Ndiaye ñëw yokk ci xar mi karaw dóor ko plainte waa groupe Mimran li ñu xam ne source mooy nee nañu kii di maître Moussa Diop ak jamaa yi muy wax du waxi dara te du dëgg du waxi lenn lu dul waxi politique kat l'observateur nañu docteur Ousmane Cissé mi jiite société des Sénégal conférence de presse na démb ay leeral fa la waxee ne suñum réew Sénégal jamaa amu fi 1970 lañu fi gëj dégg jamaa booba sax woon ci réew mi waaye ca Falémé bu Guinée la le mandat nañu en tout cas maître Moussa Diop yëngal na république bi le public moom xii seppi kenn ci ñi maître Moussa Diop di tumal muy Jean Claude Mimran mi ngi ñuy wax ne bu weesoo li maître Moussa Diop wax ci Mimran procureur bi jóg di ko lijjanti ngir mu leer li leer ba leer mooy Jean Claude Mimran yàgg naa dunde miin bu Sénégal ci naka le public yi nañu mooy bu ñu fàttaliko 2015 groupe bi jotoon na fi jënd ay part ci Teranga Gold a am wàllam ci or ak ci phosphate bi ku la public xëy di wax ci moom mooy l'homme des affaires bii saa yuy demee ci fi gën a ci réew mi rek fekk ko fa ñu fekki Ousmane Sonko ci lii quotidien ak sànni tàccoom yéenekaay bi nee nañu tey la tey ci talaata ji ci la tribunal grande instance bu Ndakaaru di wax ndax dañu koy dugalaat ci liste électorale yi am déet bésub tey bi l'observateur ni mu ko gisee mooy talaata ju fees dell ak yaakaar ci Ousmane Sonko Mamadou Moustapha Ba ministre finance ak budget moo xëy ngar daaju xët mu njëkk l'observateur privé yi jëflanteek état bi na seenum xel dal nee net kii dooni ëllëg président de la république bu Sénégal président de la république bi fi di Macky Sall dina ko fi bàyyeel ab volume de financement ak i bu toll ci 861 milliards Lamine Camara di footballkatu Sénégal bi waa CAF tànn démb ba tabb ko mu doon footballkat bu ndaw bi gën a taqe ci Afrique meilleur jeune footballeur africain 2023 moom la Soleil national xëy jagleel xëta mu njëkk stade yéene kaay feelu ko ba dañuy wax ne jeune joueur africain na fa Pape Matar Sarr. sticker